di joxe ay information yoo xam ne amul euh, keroog vendredi Sénégal yi dañoo gisoon benn audio bu xewoon ñu ni benn waaye bu doon jaay marchand ambulant la dugg ci benn kër am na nag lu ko lor xay na di loolu lépp daan ci dikk ci benn mm-hmm. t-shirt ba mu soloon dugg ci kër mm-hmm. ba mu fa duggee nag euh, ba kaf waa kër ga am lu mu leen wax daal gannaaw ba koñ ba yëpp màbbeeku nañ dugg ci ga ni waa ji ndeke yoo moom mooy ñooñu ñu doon alerté fan yëpp weer yëpp naan am na ay vaccin yu ñëw Afrique pour mm-hmm. vaccin xale yi ñu faatu gannaaw ba nag as soxna ku mel ni sama bàj bàjjan day Jóob ca Touba xam na am amatina morom benn femme daal def na audio ba mu defee audio daal pour am lu mu wax loolu dañu ànd ak topp ak Jacques Pereira daal di dem déglu premier ojo bi ndaw si di ngi mbooloo mi nii rek dégg affaire yi nan la ci def mhm. ñu dem seetaan ko te del siwaat wallaay yaa booy man damay fàtte sax ne yow tamit sa séeréer setul noonu koo xam yaa booy woo ko dali foor de ngi toj du benn xale bu doon benn xale sax mu neex juróom-ñaari xale la nekk ci kër gi juróom ñi gaañu nañ ñaar ñaa nga daal ko ma kenn xamul lii lu mu doon ci àdduna ñu wax ko lan moo tax nga def li mu ne moom université lañ ko fekk daa demoon Dakar démb ñu jox ko ñëkk bi ak carnet wan ko xaalis bu dul jeex ñu ne ko yow nag boo mënee tey ñëkk yi ba nga dugg fenn nga ñëkk leen kenn nit koo ñëkk deux millions ñaari nit quatre millions nangami personne yoo ñëkk rek boo ñëwee ñu tegal la xaalis bi si si table bi nga koto la defal la ay kayit yóbbu la nga dem Amérique xoolal musiba naaru laay boobu te ku nekk xam na suñu doomu réew mi leen tukki jaral li leen tukki jaral jaral na leen rey seen ndey ak seen baay barke suñu Tuubaa moom nag mu ñëw commencé foofu ah ñëw commencé foofu nit ñi jàpp ko tëj ko ci néeg naan bu police ñëwee yow kan koo xam ne juróomi xale yi fa dee lan ngeen di dawati police nañ leen tëj yéen ñëpp seen giiru dund tax ña leen war a yore yëpp rey nañ leen ah loolu lu ko gën a métti daa am ci àdduna loolu lépp xam ne même bu amul whatsapp sax boo ko téléphone surtout waa dëkk ba man man dakaar gi jaaxal ma de da xam naa ne affaire baa ngi ci presse bi ñëpp dinañ ko dégg ci ci ci kii ci presse yi dinañ ko gis ci presse yi mais lii problème bi mooy waa dëkk ba ñuy connecté wu bëri wuñu te bu ñu xoolee xam ne affaire bi du dox fii xale yu góor yi bëgg nañu xaalis bëgg xaalis koo xam ne jaral na leen dugg oto dem ci dëkk àll yi jeexal suñu njaboot yi nga xam ne ñooñu war a taxawu suba. warñoo de daj suba war ñoo suba ñëw tukki jaral na leen ko ndax ñoom rey fukki bakkan te sobe am alal yow benn nit rek amul lum leen jaralul ci àdduna ku nekk ku waay xam man de sama portable bi numéro yi nekk dinaa woo sax wóor la yàlla te dootuma xam kan la mais dama la koy wax rek surtout waa dëkk ba suba ba tey maa ngi woote wóor na yàlla dugg naa ñaar yoon lii c'est ça ku ma xam woo naa la te gisuma la sama whatsapp ku ma xam woo naa la ñekkal ñekkuma bu dee ñekk ca hôpitalu dëkk ba lañ koy def dëkk ya yëpp léegi am hôpital ah yëpp am poste de santé bu ñuy ñekkee ku gàddu galaas yaram ñëw ne ma ñekkal la say doom ne ko ñekkuma ñekkuma samay doom. ayca ginnaaw bi ngeen bokkee seetaan soxna Sile dafa déggoon xew-xew bi fële ca Dalifort mu def ci audio bu pata bu yaatu bi le ñu àndandoog Jacques Pereira ak Abdou ba léegi dem xool nag ginnaaw bi lii amee. am na suñ benn naataango bu dem ci biir kër ga image bi doon seen sànq am na ku dugg ci biir kër ga laaj waa kër ga ndax soxna si lii mu wax am na wala amul ndax cinq xale ñoo faatu wala faatu ñu àndandoo ak ak Terera. ñu ngi sant yàlla bu baax julli ci rasulullah sallallahu mbir mi de liñ ci dégg tey man yéem na ma lool euh, mbir mi ci kër gi la xewee woon xale bu góor bi daa ñëw mu ne ministre la santé moo ko yónni. Euh, na sensibiliser. Uh-huh. Euh, ci biir kër yi ma ne ko ma déglu ko mu ne ma léegi dañoo bëgg ngeen di raxasoo ak saabu di raxas xale ak saabu xale yi nañu seet euh, bu ñu demee marché ba ñëw da ngeen raxas seen loxo affaire yooyu daal la ma wax mu wax ba sottal ma ne ko jërëjëf mu ne ma merci bu mu wonee ginnaaw nag di dem tombeeg sama rakk jaa ngi jóge ci mbedd mi am lu mu fa dégg mu ñëw na ne kooku est-ce que amoon piqûre comme ministère de la santé moo la yóbbu xanaa di nga indaale garab piqûre wala léegi bu ma waxee loolu ba pare tombé sama rakk bee ngi jógee ci mbedd mi ñëw mu ne ko léegi su fekkee ministère da laa yónni xanaa dala jox ay comprimé wala dara uh-huh. mu ne waaw am na ay piqûre uh-huh. yëkkati saag ree nag yëkkati saag bi ci suuf uh-huh. ubbi saag bi mu ubbee nag daa génne ay abdou sawda mooy yi ñu promotion daal ah. sachet yi euh, ñaa ngi taw dugg ci biir kër gi fees dell kii kay daay bëggoon a pikiir xale yi def man lu ma tal nañu génn kër gi parce que mbooloo bi dañuy bañ ñun lu ñu tal waa kër gi ñun loolu la tal mhm. nañu génn kër gi am euh, mhm. mhm. li muy wax leeru ko mu téye si loxo mu ko yóbbu foofu ñu wooñ ñu laaj wax leen comme ni ma ko waxee fii bi ñu demee nag kër chef de quartier na ku ñëw présenté mu ne ñoo ànd la ñu dugal ko moom i ci biir mais kooku mayuñu ko sax mu wax waaw léegi ñu laaj ko mu ne moom daal bàyyiwuñ mu wax daal fekk wala lu ñu lu mu wax leeru leer ñu yóbbu ko gendarmerie ñu yóbbee gendarmerie ñu toog ñu ni bañ conduite ñu dem gendarmerie bu ñu yeggee gendarmerie ñu laaj ñu ma wax leen comme ni ma ko waxee fii waaw moom man waxuma piqûre waaw bi mu waxee ba mu génnee bagage yi ma xam ne nag xam nga comme lañ leen di tere léegi dugg ci biir kër gi uh-huh. dugalante ak génneel bi dañ koo tere uh-huh. loolu moo waraloon bu sol t-shirt bi ñëw duñu wax ministère la santé pour ñu mën koo dalal man sama xel loolu laa parce que xamatu sawda la génn uh-huh. mooy sachet bi uh-huh. ak poudre bi uh-huh. ak benn parfum loolu la génn femme bi de man xam naa ne moom ñeme na yàlla parce que magum jëmm booy wax na nga dem ba dara wóor la balaa ngaa wax na nga bàyyi ba mu wóor la mais li mu wax ni tegu ko fenn tegu ko fenn tooñ nañu nag ba ci kanamu yàlla daa ba fii comme dali waroon dëkk famille Mbodj waa dañ ba fii mu laaj ñu wax lii bu mu dalat te keneen tam bu mu dalat bu ngeen di wax da ngeen wax mu leen sos yi ngeen di sos baaxul suñu mbokk yi de suba ba léegi ñoo ngi France Amérique Allemagne fu ne nit ñuy woo suñu téléphone yi noppalu aywa ñu ngi jégalu nag euh, Sénégal yi qualité son bi le euh, ci suñu benn naataango bi ku doon jël la ñu ngi ciy jégalu baax gis ngeen kon ni mu demee audio bu njëkk bi euh, kooku li mu doon wax dara leeru ko ci gannaaw ba ñii ngeen mujjee dégg ñoom ñooy waa kër gi nga xam ni moom la ñu wax ni ci biir kër ga fi waaye ndaw si doon waxee ne am na sept cinq xale yoo xam ne dañ fa ñàkk seen bakkan ñaari ñu jël leen rawal leen fële ca dans le coma ñu nga ca dans le la ñu wax kër googa seen way juri ñoom ñoo doon wax nii waa ji ba muy dugg ci kër ga sax far fekku fa xale bu ndaw ñu ngi fa fekk benn soxna ak doomam boo xam ne toll na ci at yu xaw a sakkan lool ñoom la fa fekk commencé waxtaan euh, bi loolu amee nag euh, ci jour vendredi bi bi ñu ko jaaralee police ba mu demee yendu fa ndax daf leen wax la mu leen di wax dama doon jaay promotion ñëw di kaf ak ñoom di leen wax loolu mooy li soxna si nettali euh, kon nag defe naa li ci am importance mooy ba léegi dañuy bàyyiloo xel Sénégalais yi ñuy bàyyi partagé bu bari ak lu ñu jot jàllale am na nag ay daan yu war a mën a am waxoon naa suba ci rajo bi am na ay daan yu war a mën a am defe naa ci ñi nga xam ne ñooy def façon yu mel nii ndax dafa yomb lool def sa audio tasaare wax lu la neex ci koñu jàmbur te dara leeru la ci loolu defe naa am na yu ci war a mën a judd Omar bun Xataab Gueye seetaan sama bàjjen Ndeye Diop <laughs> Sénégal da doon neex amati naa bàjjen Ndeye Diop xam ne dinañu reeloo nag xam ne fi ne ni yi yu bëgg di ree di firi mhm. am na yii dalay dalay dalay reeloo mhm. mère Ndeye Diop nga baal dama liir benn lii ñu ne dañ ko waaju waaju noonu da ko mujj a porte plainte. Hmm. non dañu wax ne xam dafa damm laa déggoon. Ah, information yëpp ah, <laughs> naa sama ah, ñu ngi koy seet bu dee am na. <laughs> mais dafa jaadu mais porte plainte bi dafa jaadu. waaw mais. waaw sama bàjjen hmm. mooy di wax lu amul rek. parce que da nga bëgg. la lañ ci jublu maanaam parce que moom rey na cinq xale te corona bi rayagul kenn. moom yéenewul Sénégal jàmm. ndax benn ñun ñu ngi ñaan bañ a am benn décès ñu ngi ñaan yàlla kenn bañ ci faatu moom mu ñëw créer ay deew mun na am dañuy tojalal la xam nga mun na doon tojal <laughs> lépp na ci am comme moom day caaxaan rek mhm. maanaam la mu ci jublu benn ak piqûre yow nga ñëw ne non ministère de la santé moomu yónni Abdoulaye Diouf Sarr li mu stressé rek doy na ñu bëgg ko yokk yeneen i stress sànq ñu wax ci docteur Samba ñun kii ñeneen ñu ñoo ko yebal mhm. heureusement piqûre mais bu piqûroon ray la wala mu jox ay garab mais aussi tamit hmm. man waxatuma ci waa ji kooku moom gasax na hmm. du wax ko tu dëgg lii la la ca war nan ko def nan hmm. topp enquête mais nit ñi tam nan yeewu man foofu laay waxee d'accord information rajo moo koy joxe daam information ci rajo tey ji ministère de la santé boo waroon def campagne de vaccination dina ñëw wal fajri indi spot dem feneen def spot parce lu sérieux la ñu préparer askan wi ci loolu yeeleenti. Mhm. d'accord mais nan la rek ab Umar Gueye mënee ñëw rek dugub biir Kër Souka. Mhm. diw moom mooy lii ñu naan ko ana maire bi di nga maire bi li wax même maire bi sax xamul li xew. ci biir wax ji maa ngi dégg mu naan ko noo indi laaj ko carte laaju ko dara. d'accord euh, ana ana say garab xanaa ministère bu la yónnee di nga yor ay garab bi nga bi ni mu wax mooy wane ne maire bi même moom bu ko waaj bëggoon a nax d'accord da koy da koy nax hmm. cest kon yeew bi aussi tamit koy nax ci sa bopp tegin ñëpp yeewu nan d'accord mais am na ñoo xam ne ba léegi ñu ngi nalaw maa ngi ci ñëwaat léegi insha allah lu waay wax rek na ko xam Omar looy wax na ko xam léegi moom damaa xewal lu bees tàq hmm. lu fi waay wax di ko weddiwaat danaa ko teg ci kanam ah, fexeel ba boo koy weddi rek nga teg sa bopp ah hmm. déedéet man dama dugg ci loolu ci kanam tuuti insha allah loolu daan ci dikk euh, bi nga sukaa bi nga seetaanee xale bu jigéen bi ah. nga ci def rey na cinq xale te corona bi rayewul dangay ngay enregistré nit ñi. non non pour waa. non enregistré ma kenn de pour émission yi dama ne lu waay di wax. ah koy teg. waaw lu waay di wax rek na nga ko xam. man lii dama cee com man comprendre ma ci dara de. ah oui comprendre dafa amul sens de. léegi nit ñi lu am. Ah, mu ne ah kii ay juróomi xale ngeen amul sens. waaw kooku dañ ko war a jël yóbbu ko ci yoon. kooku moom nañ ko jël bu fekkee xam nañ ko waa Dalifort jël leen ko fekk leen ko biir këram jël ko yóbbu ko ci yoon mm-hmm. loolu moom nañ ko ko def nit ku ñëw ba sa biir kër ni la lii ak lii ak lii wax la mm-hmm. moom it bi ñu ñu ko bu koy laaj ay comprimé ko deful comprimé nan la koy o mm-hmm. oh, nan la koy def waaw <laughs> ah, lii dëgg yàlla mooy loolu jabu euh, bi si njëkk mooy maire bi doon wax. li bàyyi deel di wax bàjjan Ndeye Diop di wax bàjjan Ndeye Ndiaye. <laughs> d'accord. <laughs> ndaxte liñ si waxoo rek ñàkk lu mu def moo tax moo waral mu def lim. Mhm. mi ngi naan ñi ma yor sama compte yëpp dinaa leen woo lu ma ci gën a métti mooy waa dëkk ba amuñu connexion. kon partage bañ koy wax maire bi wa taxoon. mi ngi partagé ñeneen ñu si topp mooy nañu moytuwaat partagé encore une fois. beneen bi si topp mooy euh, waa ndaw si. Mhm. li mu def erreur la. ray juróomi xale ne coronavirus moo la rey xaw ma naa nag. mu ne vaccin bi. mu noonu lu ñaaw la kii dañ ko war a teg ci yoon xam ne ko lii nii instant bi dañoo nekk di jouer ak euh, feebar bi. moo tax ñu naan ay rey na cinq nit nañu ñaanal jàmm déjà. ndax nit ñi dañoo stressé wu li ñu stressé wu lépp. lii rek moo ko waral lii nag kii Umar mi ngi naan mm. day tax ñuy ree non non lii dafa ñaaw nit di ko def surtout mag nañu xoolaa bu baax yi ñuy wax surtout ay partage fi mu ne moom bu ñu ko jàppoon njabootam lay rusloo parce que dañ naan sama yaay moo ko def kii ne sama bàjjan kii ne sama umpañ wala na ñoom ah, xam nañ ko euh, na solo am na nu mu laal biiti kon su ma déggee dafa mel ni kon ñëw vaccin yu ñëw dafa bi def audio bi li ma ci wax lu gàtt la rek. Mhm. ndax euh, ni ma déggee maire bi. Mhm. de euh, activer loolu boppam pour envoyer audio. audio bi waaw. soit sëtam wala doomam wala ku mënti am ñoo ko defal mu en mu enregistré ñu. ñu kii ko waaw. ndax boo déggee ni muy waxee nga xam ne ñàngam sorewut donc man li ma ci mën a wax rek mooy heure bii du heure fo. rawatina nag ak feebar bi tey jii stigmatisation la état bi bañ ba nga xamante ni léegi waxatum sax ca gox ya. Mhm. ministre de la santé boo gisee buy communiquer dootuñu wax sax fii ca cité be ca kii ba dootuñu mhm. jox exactement euh, adresse bi nga xamante ni fa la nit ka nekk mhm. dañuy wax rek ca région be ca région be mhm. donc ndegam ñoom ñoo tiit ba mën a communiquer noonu ngallaawaay nañ bàyyi yi ñuy fooyee nag vraiment parce que heure bi nekkul heure fo voilà muy la am solo Alaaji Sa Ndiogou dégg nga élément yeeg li plateau bi wax waaw maire bi contrairement maire bi day dox di dem kii moo activé boppam whatsapp am buñ ko mën nañ ko ko ubbil nag waaye xam na bu baax whatsapp parce que nee na waa dëkk ba xamuñu connexion moo tax mbirum partage ak yooyu yëpp donc nandite la ci côté boobu nga xamante ni moom la nekk xam na lu jëm ci wàll kii boo ko déggee ni mu waxee rek nga xam ne xam na ku mën a partage mais li am solo mooy moom ginnaaw moom bi ñu bi soxna Sele weddee ay waxam wan ne li wax amut rek. Mhm. mais dafa am feneen fu mbir yi jëm. waaw soo xam ne bu ñu defoon ndànk ministre de la santé war na ci defaat communication bu. waaw garaaw parce que mhm. préparé nañ nit ñi tey. Mhm. ba ëllëg bu ñu defee sax ñoom seeni ndaw génn naan dañuy vacciné. jafe-jafe day am duñ leen wóor jafe-jafe am. te loolu lu garaaw la. loo xamante ni bii la ca kanam la. te fi mu toll nii nag lañ war a gaaw. lijjanti problème bi parce que avant que feebar bi di ñëw am na ñu ne am na ay vaccin yu war a ñëw. waaw. pour rey Afrique la. si si yooyu njëkk nañ koo jiital. dafa am ñoo xamante bi jiital nañ information yooyu ba te pare. Mhm. ba fi mu bu ñu deful ndànk rek. Mhm. ëllëg si biir sax mën nañoo indi kii boo xamante ni bi dalay faj mu kii. si si ñu bañ. ñu ne déedéet. dëgg la way laa ñu ngi wax naan test yi dem leen ci kër yi di kii. lépp yëpp mën na fee génn lu mën a dañ leen a bëgg kii. parce que am na ay ñàkk yu fi doon defal xale yi ñu naan dañoo bëgg xale yi du ñu am doom. c'est que am na information na ñoom it il faut que ñu communiquer bu baax a baax. d'accord te it ñii nga xam ne ñooy def lii ku ci def lii nañ la woo nañ la lijjanti woo la. loolu mooy li xam ne moom laa ci doon. muy lu am muy lu solo ci. daan am uh-huh. heure bu amaan. Uh-huh. dinañ def ay spot euh, publicitaire ci rajo yeeg ci télé yi. d'accord kon kon agent yi même bu ñu leen doon déployer. ci biir terrain bi d'accord ci terrain bi. Uh-huh. ministre dana ci communiquer ba pare doog a leen yebal. ba pare ak ndaw ya nu mel ak lanu euh, carte ya nuy am ak yëpp. Euh, ñu njëkkante waxtaan yi loolu dinañ ci parce que incha allah fii ak jeudi dinañ ci ñëwaat ak yu gën a yaatu jabo dinaa ñëwaat euh, dinaa ñëwaat waaw am nañu médecin yu dépistage massif mhm. pour euh, corona bi xam ne mhm. ñu ñëw dépister ñëpp d'accord ko non am na dëkk yu ko tàmbali te gis nañ ni efficace na mais Sénégal ministre bi paraît daf ci am ay réserve mhm. comme li saa wax rek mooy ñun fii gëmloo ñu dara te mu ngeen dem ba egg foofu ah. koo dugg këram mu ne non ma kenn parce que doon nañ fi wax lii loolu tax jarul fooye daal. Mm. ok jarul fooye ñu dem ci leneen loo xam ne nag la yoo xam ne man dama ko dul may kenn fii ci palaato bi sax wala ca rajo ba ku dul béti béti daal moom duma ko yóbbu vaar ndax moom mm, tawarkaal la mais sukkaak ñeneen ñi ci des ku fi waaye lu wax te teggi ko danaa la yóbbu vaar. Alaaj Sanjoogu Mbengue ca rajo ba bu ngeen fàttalikoo première bës bi nga xam ne ci la couvre-feu bi commencé ca rajo ba dafa am lu mu waxoon waaw ca Dóoree ñu ñëwaat ci plateau bi Alaaji Sa Ndiogou ba mu sedd wecc lépp ci même jour bi lépp ci même jour d'accord ñu ànd ak topp dem seetaan euh, premier élément bi ñu di seetaan kon nag ñun bañuñu ñu wax ni mhm. jël nañ ay ndogal couvre-feu na ñëpp toog seen kër mais dóor lu yoon dóor loowuñu kenn Omar moom lañ njëkkee ministre bi wax waxul nii nañu dóor daje nga ak sénégalais bi fan nga jëm nangam sangam nga dëpp ko su mënul nga teg ci moom yoon mais dóor moom wax dëgg man tey suba ëllëg ànduma ay mi ngoog loolu daal li am solo daal mooy xam naa ne état d'urgence bi couvre-feu bi ñu def mhm. je pense que ni daal booy gisee nit mu jaar ci yoon mu tegu tegoot ci yoon dañ ko war a jàpp yóbbu ko teg ko ci yoon mhm. donc loolu mooy li nga xamante mooy li war waaye je pense que ni yaakaaruma ni ay dóore nag bokk na ci mhm. waaw donc bu ci dóore amee tamit ñu ngi koy wax kilifa yi leen wax ne leen daal defe nañ ni dóore bokku ci ragal lu ñu yàlla yar la ñuy ragal. kon da da ngay dëgëral dóor yi. no dóor yi dafa am lu muy firnde parce que tey dafa am. loo xam ne dafa am lu muy firnde kon da ngaa dëgëral dóor yi. da may déglu rek dañu dañu jël mbir mi ñu daal di teg yoon. ñu ne nii lañ war a doxee nga fexe ba doxee noonu. waaw ma fexe ba doxee noonu kii fexe ba doxee noonu ñun ñii ñëpp fexe nañ ba doxee noonu. Hmm. doonte noonu am na ci ñoo xam ne doon doon seen jikko mais fexe nañ tegu ci yoon. am ñoo xam ne génn nañ ci biti am na ñoo xam ne dañuy défier fu ñu toll jabu wax na ko léegi ku ne taxawal ma damay bàyyi ba heure sangam ma génn ki génn pour défier nga defee na ñoom alkaati yi xamuñu alkaati yi mais li ñu jàng ak ñun li ñu jàng du benn ñoom li ñu jàng mooy fexe ne ba mbir yi ñu te tracé na tegu ci yoon fii koo fi waxtaanal tey bu subaa mu jëndiwaat cere waaye koo fi dóor tey bu subaa du génn ndax dóoree mu doo xalaat alaaji saa. non léegi li ma si lu ma jublu mooy Sa Ndiogou daa war a lu mu bu rajo ba wax le mais sévère oui alors non. am dafa xaar ba ñëpp jël parole ba ba ba ba déplorer dóor yi. Eh? moom mu génn feneen ndekete moom ca rajo ba. Eh? moo jiite woon wax ja. Oh, ah, ah. auditeur auditeur bu dugg daan dóor mu ni bu ñoo dóor. te neewoon naa fi bëgg naa li ngay wax ci suuf da nga wax ci kaw. waaw léegi noppi leen yéen ñëpp kàddu gaa ngoog. vaar. <laughs> Galilée eh, nga dafa am tamit yeneen vaar yu am ci vaar yi. <laughs> yan vaar la. li gën sa vaar ba eh, pare. damay demander top moom mu jox ma vaar exemple jox leen ma vaar. bañu ñu ñu wax ni. Mhm. jël nañ ay ndogal couvre-feu na ñëpp toog seen kër. mais dóor du yoon dóor loowuñu kenn Omar moom la njëkkee ministre bi wax waxul ni nañu dóor daje nga ak sénégalais bi fan nga jëm nangam sangam nga dëpp ko su mënul nga teg ci moom yoon. mais dóor moom wax dëgg yàlla man tey suba ëllëg ànd ma ci dóor ayca mi ngoog loolu di benn ci élément yi xam naa daan ci ñëw ak jàngat bi ginnaaw bi ñëwee wane ñàkk yar bi nga xam ne lenn ci sénégalais yi te damay wax ni sax ministre de l'intérieur tey jëlee war naa commencé na mu commencé woon ci ñu doon wax naan corona bi amu fi ndax ñi ñu gis ñëpp tey muy Cana Touba ak Paulis ak ñi nga xam ne xàmme nañ leen ci vidéo yi dañ leen a war a convoqué ñu woo lan moo tax ñu génne benn euh, benn décret boo xam ni te Sénégal yëpp waroon ci maase ngir suñu wér-gu-yaram ñoom ñu xotti li nga xam ne moom mooy loi boobule. alaaj top top indiloo ma sama vaar bi may demandé de. Eh, li lool. vaar bi may demandé mais nag mais nag wuyu ma nag. non non defal naa ko vaar vaar bi ñëwul laa. oto sax da ngay gis ñu arrêté ko wàcce commencé dóor. ce qui veut dire que ni. nit ki bu nekkee ci oto nga arrêté ko. Mhm. war nga koo mën a laaj carte professionnelle. Mhm. wala nga ne ko sëñ bi couvre-feu lañ nekk lu waral nga génn bés bi bi mu wàkk ni setee le premier jour. Mhm. nga laaj ko lan ak lan ak lan boo ko génnee waxtu wi. man la ma waxoon keroog moom laay waxaat tey ñi nga xamante ni dañoo wàcc liggéey di ñibbi wala ñu nu fekk ci seen oto ñuy ñibbi loolu laa wax mais quant à taxaw ci mbedd mi kilifa taxaw jël xeer di sàññi policiers yi teguñu ko fenn. waaw léegi yow Salick li nga def pour lan la xaaral xaaral waaw mais toog mooy réaliser émission bi nañu kaay leen rek moo wàccee yoon ngeen ma du yoon Sanjogo amul droit di demander VAR ci rubrique bu jàmbur na xaar ba xur dab ñëw mu ne yóbbu woon nañ VAR tey laay yóbbu mais yow ba pare Omar yow man li nga dégg ci man loolu amul sax man waxuma waxet mais kii moom dafa wax. ah mais mais mais mais waaw may wax may man man lay tontu ba ma man daf ma teg parce que. bi nu premier jour couvre-feu. te kii sax dañ li ma waxoon laa waxaat. kon kon wax kon nit ñi policiers yi dañ doon dóor nit ñi. nga xëy presse bi yëpp. di ko métti dëgg la deuxième jour bi ku ne xam nga ni vingt heures war la fekk sa ci mbedd mi ñu nekk ci mbedd yi di kokkali policier yi man li ma waxoon laay waxaat da ngeen may da ngeen may interpellé da ngeen may dégg lu ma wax ma ne man duma farak kuy tooñ su kaa lii de laa waxoon waaw kay xam nga yàlla dafa dogal da ngay ñëw jour lan moo taxoon nga ni nga ni bu ñu dóor après nga ñëwaat ni nañu dóor ñëwal ci loolu sax xam nga yàlla dafa def. bu ñëw ci yàlla ñëwal ci li nga waxoon waxee yàlla dafa def. waaw kii ma gën koo informé. moo tax man ci bés bi laa rectifié li ma waxoon ci bëccëg. loo parce que ci bés bi laa yëg ni. waaw. xale yi dañ doon sabooté. waaw alkaati eh non boobu sabooté génnagul woon. non boobu sabooté benn vidéo. benn vidéo sabooté génnagul alaaji. sabooté génnagul neen yëgu leen ko génnagul woon yëgu leen ko may mais kay wax la moo tax ma ne leen moo tax ma ne leen donc laa leen gën a informé génnagul woon deuxième jour bi dañ leen bu ma waxee loolu ci rajo bi la am ku ma woo ma ma déedéet déedéet saa déedéet sa wote bi génn waxal turam waxal turam kan moo la woo sabotage bi kan moo la woo kan moo la woo xamal li neex xamal dama wax nii ci rajo bi am kilifa police gu ma woo. Ah. mu ne ma saa dañ lay déglu. kan la kan la dégg bugguma defale trop ah, ah. mu ne ma saa dañ lay déglu. dañu dégg kàddu yi nga xam ni wax nga ko. mais boo gisee dóor yi am. kilifa police dafa fekk ni xale yi ci seen bopp. saa boobu dóor amagul mais loolu vidéo amul mais loolu vidéo la bi mu waxee loolu bi mu waxee loolu ma ñëw toog fii. waaw ànd ci dóor yi. scénario la moo ko xam naa ñoom lu ñu xam. mais da nga wax li tax xam ko xam moo créé police bi. kenn woowu ko kenn woowu ko. moo créé police bi léegi ñoom. yaa ngi ko ko dama ni. yaa ngi moo tax benn bi yow waatee nii waxu tappale la waxu tappale lay wax. c'est que li am solo danga daanu. li am solo saa waxal rek waxal rek wuy ma. li am solo mooy li am solo mooy nit ki. bu paree nga joxaat ma information dafa am solo. am informé wun la nga informé nga fi wax yëfu tappale la. di jox ñi nga xam ni. ñoo ah. yore mbir. Omar Omar bu dëgg waxee nañ leen ko wax te dee. waaw voilà mbir mi loolu la. non non non non xam nga yéen. bu nekkee ci lépp lu ma wax parce que je suis le Galilée de ce plateau. mais dégg nga Galilée lii lañ ko réeré. waaw dégg nga saa boo nekkee ci rajo bi da ngay laqaaj doo xam fi nga nekkee. waaw dégg nga je suis le Galilée de ce plateau. waaw saa déglu Galilée. déglu ma dégg ma may. saa bu commencé ba <laughs> xaddamti ko day wax rek parce que café gi mu tiima tax di wax hmm. bu ñëwee ba toog fii nag ba xam ne yeewu naa addinaa koy xool mu waxaat leneen sa yaa daanu kenn woowu la yow yaa indi sa inventé bopp inventé sa moo créé police bi <laughs> mbir yi waaw jërëjëf bi ci njëkk mooy saa waru jël rubrique gu jàmbur di ci dugal ay ah. waaw kañ merci dugal la ci man sax tiitoon naa ndax man la ma waxoon mercredi ak la ma wax jeudi du benn du benn <laughs> waaye heureusement pour mais heureusement ba man yóbbuwuma vaar. sa saa yow xam nga sama xarit nga mais nag euh, Adja saa moom mën naa d'accord ne mën nañ ko woo ni ko carrément. ah waxam la da koy jël parce que nit ku nekk boo ñëwee yàlla du la boo <laughs> mais moom li mu wax mën nañ ko gëm quand <laughs> barki yàlla moo ko lamb ji fi amoon daaw. waaw jël baa ngi nii. waaw te suka suka. nekkuñu au sommet la la suka suka. journaliste yi ci bari. ñoo ko gën a informé. waaw te ba télé boo jàpp rajo boo dégg. loolu lay wax loolu la ñuy wax. waaw mais journaliste yooyu waaw déglu rek waaw déglu rek information yëpp toll niveau bi ma toll ci xibaar. waaw dégg ñoom ñëpp eh. après dañoo soppali seen wax. non non non pas le même jour xamal nañ leen loo xam ne xamuñu ko woon. le lendemain eh, eh, mais man man bu ma paree émission. après ci lañ ma wax. waxuñu la dara mais ça ça policier boobu moo ko créé xoolal ma ni barki eh, yàlla policier bi moo ko créé moo créé policier bi. xam nga xam nga sooy. moo ko créé man la kenn woowu ko. kenn woowu ko saa mi lu mu xam da koy denc bu ñëwee bu déglu ñëpp ñu wax mu nappaajale. waaw waaw tax ma denc ko. léegi defal naa waaw defal naa ah, mais bu fekkee ni loolu. Ah.

boo amoon la pourquoi le pourquoi boo ko amoon. xam nga li ñu bu dégloo ñu wax. damaa xam a wax. waaw d'accord yéen da di nang nang rek. maa waxoon waxat yow sooy. man xam naa saa saa goo xamante ni. amul benn yàgg nañ yàgg goo xamante ni. kenn woo bu fekkoon yor na danaan mmh, mmh. woo nañ ma ni ma xale yi dañ doon kokkaliku ni kenn woowu ko bien que mën na bañ a wax tur waaw bu ma nee la kenn woowu ko rek day wut fu mu jafandu Eh, kenn woowu ko lii ay tappale la. dégg nga ba pare mu naan dañ maa wax naan ma saa dañ lay déglu saa yow nit ñi dañ lay déglu. xale yi ñoom ñoo ñu provoqué. day tappale kenn woowu ko information nga moom mooy wax nit di information internet. xam nga bu toogee ci plateau bi day bëgg nekk le mieux informé. mais day bu ko amoon da koy wax. Omar scénario bi dama ko bind maa la jàngal tey lii ci saa bu ko xamoon wax ko. waaw bu ko am fii day am réserve. waaw. mais Sohaibou. bu ñëwee dina ko aywa. loolu kaw kaw la merci. pour pour nit ñi xam ne pour pour ñoom sax xam nga. am na voix matinale quoi. waaw voix matinale mën na tromper. ak ko ma vraiment dama nekk ak ay ennemis ah. nekk ak yenn ennemis. <laughs> bala maa ngi ñoo xam ni. waaw waaw yóbbu la ah, baax. waaw dëgg dëgg waaw dëgg dëgg. vraiment mais lii c'est grave. non ba pare. mais man dafa nekk ay nit rek man rek ba pare ba pare top encore top ak ak Zac Pereira ñoom ci complice lañ bokk. ah couleur rek waaw la waroon eh, top ci complice nga bokk. eh li ma ci gën a naqari mu naan. yàgg na ma ko man kii yàgg na ma wax loolu. Ah, eh, eh, déglu. non rajo bi non benn sensation la ah. déglu ko. man kay dama leen déglu. Ah, bu ñuy kaw kaw <laughs> yow saa bu tëjal biir baax na moom victime bi la man li ma ci ñoroon pour sénégalais xam ko xam nga bétti bétti bétti dafa bari xam-xam bétti fii la toog daal ni nit lu muy wax ci suuf na ko wax ci kaw xam nga bétti wax na lool foofu bétti nee na déet xaaral rek waaw. niveau d' information waaw wuy ma non non niveau d' information moo garaaw parce que fa ma toll ci xibaar yi. Euh, yow saa yow yaa ngi nii saa ba dem bi ñu pare jommel yow yow affaire affaire me jërëjëf euh, en tout cas li ma bëggoon Sénégalais li ma bëggoon Sénégalais xam ko mooy Alaaji Sa Ndiogou Mbeng mi ne woon nañuy làppali di dóor ca rajo ba moo waxoon ni dóoruñu ministre bi santaanewul même pas deux heures de temps mu ñëw ni nañu dóor ñu yóbbu ko vaar mu metti ko nag bét yi dégg ngeen ay waxam ni mu kolewee dani la ma waxoon démb laa waxaat tey kooku kay baar amu fa déedéet la laa waxaat tey amul baar la ma waxoon démb laa waxaat tey euh, topp jàmbaar daanu na jàmbaar daanu na topp daanu na ay jàmbaar daanu na topp jàmbaar daanu ñoom ñëpp ñu ngi ci pax mi ak Jacques mi ko teg kan Zag noo xam nga Zag sax moom buñ ko ci boolee. ñoo ko teg de ñoo ko teg ñoom ñëpp ci biir ñoom ñëpp ci biir en tout cas sant leen numéro Jommet baa ngi noonu numéro Jommet baa ngi noonu 77 128 33 29 ba jeudi incha allah. cas ayca. nuyu mbokk téléspectateurs yi saxaw di seetaan seen télévision bu mag bi de kon ñu dugg ci li nga xam ne comme ni ñu koy waxee mooy lu nu moom mu di nappaat musical di sargal ñëpp di sargal ñi nga xam ne rek euh, ñu ngi ñuy bàyyi xel ñuy euh, sargal euh, sponsor leader bi mu di lobu gaz maam Jaara Bousso comme ni nga koy waxee rek ni yéexati ñàkk la romb ci réccu la di kon di nuyu ñëpp tey nag ñu am fi ñi nga xam ne moo di ñaari gan soxna Betty mm-hmm. mu di <coughs> ngañ bawal bawal mm-hmm. ak ki nga xam ne rek moom moo di mettre El Hadj koo gëj a dañ koo gëj a. dégg ah, ko amul benn problème. <laughs> kon ñu dalal ko ngañ bawal bawal toog na ba pare. jërëjëf sëñ Touba. sant yàlla. sant borom daaru. sant képp koo xamante ni kii yaa ngi siiwar émission émission bi xaw maa fee gëjëndiku. Mm-hmm. ndax de nga am def naa ni ñëw naa fi yaari yoon. kon mm-hmm. yi ngeen gis nag. fan yëpp daa nekkoon ci loolu ñu tudd ko formation bi nga xamante ni bii mooy biñ lay jël rek dajale ñu ndaxte loolu ñu tuddee jàngoro ji nga xam ni kur kurna gi moo ñu kii teqataloon ba ba ma bokk ci kaaya ñu ko confirmation ba mhm. ci laa ne woon mhm. maa ngi leen nuyu bu di leen sant mhm. tey di leen gërëm ci dara nga xam dara ngeen ko ci plateau bi. Mhm. ah di wax ci yaakaar naa ni eh, ngañ bawal bawal yéen euh, mbokku téléspectateurs yi duñ leen ko duñ leen ko présenté. ndëkk ñu fee ñëw. ne xam na fan la corona ne. corona nit la ah, ah. mu ne wan la dëkk. Mm. chinois la mm. ba ko gisee dafa mel ni man dafa nduroog man loolu la fi njëkk a wax. mu ñëwaat fi beneen yoon daal ni mën naa faj li nga xam ni rek moom moo di coronavirus. moom ngañ bawal bawal wax loolu mu jógee mu ni sax kolobaan loolu lépp wax na ko fii. tey nag bi mu fi ñëwee moom mi nga xam ne moom moo di ngañ dañ ko mettre en quarantaine mm. moom mii ndax dañu dafa amoon li nga xam ne moom moo di corona moom moom ngañ ah. nag dañoo bëggoon a xam nan la dundee li nga xam ne rek moom moo di quarantaine ban ko defoon fa nga xam ne moo di ca hôtel ba li rek buggoon bëggoon rek nga wax ñu ko jërëjëf sant yàlla sant suñ tuwaa ndax damaa dugg ci kaar jekki-jekki sëqat <laughs> ah nga ñëw toog nga toog fi sa wóor. am ku yëkkati portable am woote. Mm-hmm. daal di ne. tisóoli nga. am na ku tisóoli ci oto bi. Mm-hmm. oto ba jekki-jekki. nit ñu weex pour ñëw pompe ma. ma ne ñu dugal ma ci ab oto. bu naan pii ma mip ñu jël ma yóbbu. ma dem ñu daal ne te defal nañ may test ne ma toogal ne le positif positif ma ne luy positif. ñu ne ma positif nga ñu teg nu foofii ñu ne fa ci ñu ngi woon ci kii nekk fa la waay ñu lekk kii ginaar ak yooyu ci wax dëgg yàlla moom mbir mi bakkan lool waay waaw ba may dem wax dëgg yàlla neexuma waaye ba ma demee ba yegg nag mbir mi moom wax dëgg yàlla am na solo ba yegg ci lool bi may génne ñu ne ma négatif négatif waaw ñu ne ma génnal ma ne leen mën a guta négatif du positif la ñu ne ma négatif ma ne leen c'est positif la <laughs> ndax li ma fi dugaloon ba tay tàggoogut ak man ñu ne ma lan ma ne am sëqat ma ba tay maa ngi sëqat ba fi mu toll nii maa ngi sëqat fi mu ne nii yaa ngi sëqat <laughs>